jéem ci rafet njort rek asu mu nekk tamit lu tiis li nga xamante ne dal na doomu Sénégal nekkoon ki nga xamante ne avenir la woon ci réewu Sénégal bi en tout cas euh, man tout d'abord euh, hmm. sujet boobu balaa monsieur dugg damay masawu ñi nga hmm. xam ne hmm. ñoom ñoo di euh, parents wam yi parce que neexul nga am sa doom xale bu ndaw vingt ans nga yaakaar si moom déjà mu sori la sori bi rek c'est c'est c'est dur nga teg si nag ñu ne la xamoo fu mu nekk moo tax fu ñu mun munti nekk maa ngi leen di mastaw bu baax a baax et que di wax ni euh, problème bi c'est c'est un peu compliqué ñu daale ci àddu de manière peut-être euh, euh, ñu wax ci mm-hmm. ouvertement parce mm-hmm. que comme mi ngi ci loxoy yoon mm-hmm. day day xaw a doy waa trop ñu ñu xaw ci xuus mais en tout cas lu ñu mën a wax moom lenn la mooy que ne du cette fois-ci waruñu sax bàyyi mbir yi mu mu muy yeex mm, wala ñu koy bay bayal comme lu ñuy mm. wax mm. si si parce que bii moom pour man bii c'est c'est une mm-hmm. occasion mm-hmm. pour au moins ñi nga xamante ni réer nañ mu ñi di ay Sénégalais wala ñu rey leen à l'extérieur bii réparé ko mm-hmm. parce que euh, xëy na jaari sow si si comme tout parce que nit la comme ñëpp mais compassion bi lu tax mu gën a fort mooy li mu doon mhm. nit ñi dañu yaakaaroon si moom voilà ñaari yoon la euh, nekk meilleur élève du Sénégal xam nga kooku kon du caaxaan nekkul benn yoon nekkul te moom toujours aveu yu nga xam ne da daan def mhm. ay propos mooy que ni gëmuma di dem di toog ci beneen dëkk cest mhm. lu ñuy woowee brain drain mooy fuite fuite des cerveaux lu mu bëggoon tout le temps di ko véhiculer mooy su ma paree jàng retourner Sénégal daal di fi appliquer sama savoir faire donc pour man loolu rek war na tax ñun ku ci nekk waslu si sa ak exemple la woon exemple la woon Sénégal bañ a maye dara si mbir mi mhm. parce que bu s'il le faut même ñu def ko une affaire d'état loo xamante ni c'est diplomatique parce mhm. que tamit il faut savoir que si c'était la France mhm. tey jii moom ci la ñuy xëy ci la ñuy gont kenn dootul tal waxu euh, état d'urgence wala état d'urgence bañ koy décréter ci lii lañ koy décréter parce que France ñëpp xam nañ ay doomam fu mu leen teg nu leen aaree donc que ça soit réciproque s'il le faut lu ñu lu ñu war a def ci mbir mi nañ ko def mhm. bu mu nekk loo xamante ni dañ koy banaliser et mhm. ñun aussi en tant que euh, professionnel de l'information am nañ ci une très grande voilà responsabilité parce que ñu koy bàyyi mu jàll rek ñuy nëpp nëppal mbir mi hmm. kon lu lu ñu mën a wax waaw lu ñu ci mën a lu ñu ci mën a communiquer lu ñu ci mën a def lu ñu ci mën a wax ñu hmm. wax ko si parce que responsabilité ku nekk la hmm. xale la et on compte beaucoup sur sur sur Assane teewul tamit l'espoir est toujours permis euh, l'espoir est toujours permis et ça nous permet de toucher peut-être d'autres d'autres euh, points yi nga xam ne peut-être c'est similaire mooy que Astou wax na ko léegi il y a pas très longtemps am na benn étudiant bu ñu rayoon Maroc donc si appartement am lañ ko fekk donc euh, jël bakkanam et yeneen situation aussi jot na fi jàll yu ni mel mhm. Mhm. et loolu ça ça fait peur et en même temps aussi dañuy permettre ñu laajte est-ce que ñun lien bi nga xam ne am nañ ko ak l'extérieur euh, mu ngi mu ngi mu ngi exister ba ci euh, profondeur yooyu noonu mhm. donc euh, autorités sénégalaises yi nga xam ne ñu ngi à l'extérieur ñun am nañ confiance ci ñoom ñu ngi def le travail qu'il faut bien vrai que c'est une question de justice ñun addu ci addu ci wala tey ji ku que y a des gens yi nga xam ne ñoo véhiculé woon benn information comme quoi kii nga xam ne moo nekkoon a jaari dañ ko jàppoon que tel n'est pas le cas l'information n'est pas avérée donc ma li may dénk rek maanaam suñu dirigeants yi nga xam mm. mooy ñu jàppale les étudiants qui sont en France donc mm-hmm. euh, euh, manière générale donc seen condition de <laughs> vie gën a am benn mm-hmm. démb sax gis nañu étudiants yu nekk France doon def manifestation di ko jàppale tamit fexe def ay flyers fu ne ci mbedd France yi ngir euh, jàppale kii di jaari réew euh, sa kàddu gu mujj ci jaari saw asu bon euh, li li may li may wax répétition la c'est-à-dire mm. déjà nañ ko ñaanal. Mm-hmm. ñu ah, ñaanal voilà parce que ah, loolu aussi c'est important si suñu culture la bokk. <laughs> lu xew dañ naan nañ ko ñaanal lu xew dañ naan nañ ko ñaanal parce que loolu lañ soxla. Mm-hmm. ku ci nekk xam naa ne muy man ak muy keneen xamuñu ko wala euh, gis nañ ko benn yoon. wala lu mm-hmm. demee noonu. mais dangay toog man bokk en tout cas damay toog bu guddi su ma toogee xalaat ko sama day mel ni dama dama bokk ak moom dara telement dama koy xool xoolee sama rakk dama koy xoolee ku waroon màgg war a tekki war ñu représenter dans des instances mm-hmm. et euh, ñu ñu bëgg ko mu demee noonu non warul warul warul dem ah, jaari c'est c'est c'est quelqu'un qu'on doit vraiment euh, accompagner glorifier voilà ñu ñu ñu ñu fier si moom mm-hmm. wane ni Sénégal am na des élites yoo xamante ne mm-hmm. euh, capable bien sur de de de nous représenter partout dans le monde donc pour man jaari sow bii moom dañu war a def loo xam suñu kéemtalaay kàttan mu nekk loo xam xamante ni au moins dinañu hmm. réconforter si yeneen hmm. crime yeeg perte de vue yi nga xamante ni c'est sans suite hmm. voilà